lan bikum réewum Sénégal fa ñoo rëcc ci musiba naaru laay bu naroon a xam ca aéroport Blaise Diagne ba ndax fa faa xam xab roppalaan bu saaraar wàcc yoon wa moteur ba tàkk ba xam ñu bëri ñu fa am ay gaañu-gaañu info yéene kaay moo ñu ko xamal photo avion ba nag roppalaan ba mu ngi ci yéene kaay yu bëri vox populi na guddik jaxasoo moo xamoon ca aéroport Blaise Diagne ba turbine yéene kaay na ko roppalaan ba nag réewu Mali la bëggoon a dem waaye sotti wut de les ko yéen kaay ne juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñett ñoo ca nekkoon roppalaan ba nag trans air ñoo ko moom fañ koo luyee air Sénégal yéen kaay bi ne faa leen di wax lan moo waral accident ba xam ah, yaw seetal fa paan ci wàllu hydraulique ña ca am gaañu-gaañu nag ñoom ñëpp faj nañ leen ba génn leen hôpital ñibbi ba mu des rek kenn ca ña doon dawal avion ba moom fa damm ñaari yoon bés bi yéen kaay ne la am kay ba fa garaaw ba jéggi dayoo ah yow boo xam ne fa saaraar jàdd yoon wa li ñuy wax sortie de naaru moo na doon xam fa ñoo rëcc de juróom ñett fukki doomu aadama juróom ya fa newoon su abiyon ba tàkkoon ca seen kaw fu ñu jëm moo sant yàlla sur saa yéene na yëfi kay comme gént rek réew mi yéene kaay ne roppalaan ba numérom ba 737 la Boeing guddik njàqare nag ak tiitaange moo xamoon ca AIBD enquête yéene kaay ne tiitaange gu mag gaay fa ñoo jàqoon de yéet tét tét xam nañu nekkoon ca abiyon ba ñoom bi gisee moteuru ndeyjoor gaañu ñeenti yee nag seen gaañu gaañu fa métti lool le soleil yéen a kaay moo ñu ko xamal fa caa yokk na xaw tuuti kay làmbaay ñaaw bi yëf yi amee nag aéroport ba fa ñoo dakkal dem baak dikk ba benn roppalaan naawatut génn wala nga dugg roppalaan yi waroon a dugg si sax fañ leen a jàllale ci aéroport bu Guinée Bissau ak Gambie foofu lañ wàcc le quotidien yéen a kaay gars fa ñoo tiitoon de hee jàq kuréel gu yor roppalaan yeeg yi mel BA e fañ ci ubbi ci déedéet yëf yi demeewul noonu de roppalaan bi ci ñaareelu jugaatam ngir jéem a naaw dem muy décollage ci la moteur ndeyjoor ba tàkkee ndax fa ñoo njëkk a gis ay jafe-jafe ñu taxaw bi ñu soppee avion tamit ci Transair bi moom it fa départati bay jóg xam jafe-jafe ki jiitee këru roppalaan googu ñuy wax Transair nag ma ngay dalal xelu askan wi leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne licence de pêche yi maanaam këyit bi nga xam ne fañ koy jox bato yeeg gaal yeeg yi ni mel ngir a napp ci géeju Sénégal gi li ni mel ndax fa am bato yoo xam ne tubaab tubaab bi fa ñoo bàyyi ko bitim réew seen licence yooyu ñu leen jox jaarut yoon ni ñuy nappee baaxut ci géeju Sénégal yu bëri fañ koy dakkal bés bi yéen a kaay moo ñu ko xamal enquête yéen a kaay dëggal ko ne jomaay fa bëgg ñu auditer accord de pêche yi laas yéen a kaay na président jomaay kay fi mu toll nii fa napp jëne jàpp ca bopp ba maanaam fa bëgg Sénégal yi am jën yu baax yu ñu lekk ñu bañ a jël suñu géej gi rek jox ko tubaab bi ñu koy caxat-caxatee moo tax te dakkalaguñ ko léegi ndax président Diomaye Faye mii caaxaanut sax moo ngi xàndal fa ñoo bëgg andi coppite li nga xam ne mooy jën yi nekk suñ géej gi fa ñoo bëgg sénégalais yi di ci jëriñoo ba pare tamit sénégalais yi ñiy napp sax nappum cosaan mii ñu mën a gis seen bopp ci géej gi waaye yàq suñ géej gi caxat-caxe ko xuuf paa jël jën yu baax yóbbu ba yëpp yóbbu ba sénégalais yi dem di Guinée Bissau wala Mauritanie di nappi loolu fa nga ne fa rafet loolu nag fa fiy jeex ko mooy paccoo suufu sénégal ci xanam gu jéggi dayoo foo aéroport Léopold Sédar Senghor sax gars yi caxat-caxatee nañ ko séddoo ko mais ñii fa ñuy faxantu l'évidence yéen a kaay na tong-tong paccoo gu métti moom lañ def tamit ca mbuur kat suuf sa lépp lañ ronq Abdoulaye Seydou Sow ma ngi cay argumenté moom laneen lu mu argumenté moom Abdoulaye Seydou Sow mooy xab bomb la kalaate ca turbine yéen kaay ah, yaaw seetal fa wax ne président Macky Sall ci biir campagne bi fa maa xoo na ma faa bëgg ñu soppi Amadou Ba bu mu ko tontu na ko soo ko waxee de nga sant ñu ko fañ koy def waaye man ma soñoon fa ngay bàyyi mu continuer ndax nañ ko moo tax waaye président Macky Sall fa maa wax njombe yi nga xam ne moom la Amadou Ba def lépp fa ma ko wax te loola neexut ko yéen ne ñoom ñaar seen diggante nag fa xam lu ca dox de point acti yéen kaay fa ñoo xamal ne diggante président Macky ak Amadou Ba fa ñoo ragal xeex ñàkkante fa cee nar a xam de ndax fi mu ñoom ñaar kan moo nar a nekk chefu opposition bi Amadou Ba moo nekkoon candidat bi moom lañ buqi waaye moo jël deuxième waaye Macky Sall ba léegi moom nee na moo jiite APR te mooy doxal laaj bi nag mooy Amadou Ba moom fay génn APR taxawal parti boppam wala boog fa fay des le mandat yéen a kaay fa ñoo xamal na Khalifa Sall moom delluwaat na fi mu toll leer na carrément ñibbi na ca PS gu njëkk ba mu yeggee nag maggi PS ya fa ñoo rafetlu del si gim del si ndax ku xamut nga jëm fa ngay jóge maay nekk cinquième président taxawu ndakaaru moom moom ndakaaru ak Sénégal man la ñuy fal ñu téele ci wata yi mbuqi la mbuq yoo xam ne kenn mësu koo gis waxuma la Dakar waaye sa biir kër bureau de vote ba sax Sonko fa la faa mbuqi ak jomaay loolu mooy ne duñ sa morom lii de moo tax mu delluwaat PS libération moom it fa xamal tooxi doona ci wàllu tappale suufati lu toll ci 93 ca réserve bu Bandia 24 a kaay moom fa xamal ne newetu ren bi ngir moytu mbënd mu métti muy sonal askan wi fa tax président jomaay fay fa sàkku amal plan national ngir a kaay moom fa xëy am doole sur saa yéen kaay na ko premier ministre boobu ngay wax Ousmane Sonko démb daal fa def loo xam ne fa yéem ñu bëri xam nga fi toll ni moom fu muy génn di dem takk der yi ñuy wax GIGN ñoo koy garde ko saytu démb nag fa yolleeku ndànk bàyyi fa takk der ya jël oto boppam def ci essence boppam dem seetaani ji match de football bu doon am diggante garde corps yi ak chauffeur Pastef yi waaye bi mu ñëwee nit ñi fa ñoo jommi laa wax ndax kenn yaakaarut a Baara Njaay fa leen di défendar di leen kaasal ngir ñu taxaw leen saafara seeni jafe-jafe a ñoo xamal ne feebar bu bon boobu nga xam ne mala yi ñoo koy wàll nit ñi ñu koy wax Crimée Congo fi juróomi sénégalais dal na leen kim njëkk a dal Dakar la mu dalaat keneen Kaolack Matam fi mu nii am na ku fa dal ba tey informateur yéen fa ñoo xamal ne bët séeb bi na yàlla ji taw na ca Casamance dëkk bu ñuy wax Bandafassi kon nag baykatu Saalum yeeg Fatick yi ni mel dem ruuji de nawet bi ñëw na ba pare de te ñu gaaw jox leen jiwu nag la mu ñu jox moom Dakar waaye yéen kaay mooy mbir mu yéeme te garaaw yaaw seetal faam benn waay fa fiira fiir bay bëgg a dee fiiraangi gu ëpp nag jàpp na jabaram faam ku muy génn ak li ni mel moo taxoon mu jël jabar ja ak doom ja yépp bëggoon leen a taal lakk leen bañ jeex faatu ñàkk seen bakkan ci lañ ko mujjee teg loxo yéene kaay bi nee na boo moytu nag fukki atu kaso lañ ko nar a tëj donte pexem sottiwut waaye comme fa doon jéem taal nit koy dund ak bakkanam lépp ndax fiiraange kaso Oh.